doomoon woon ba bis am naa doom joo xam moom laa ko de ah, yaay ruugi kon amoon nañ diggante mu mayoon ñi ñuy dugg ba ci barabu biiram muy bokk ak ñun loo xam ne lenn ci njabootam sax duñ ko xam kon mënuñ cee xuus ah, mu doonoon koo xam ne ku amoon sutura tabe moom yaakaar naa ni mën na ko définir boo boolee tabeek sutura bi nag yaa ngi dugg ci ngëm ndax mi ngi ko doon defee noo xam ne noonu lañ ko santaane mooy ngay joxe ci anam boo xam ne euh, day suturawu ngir préserver la dignité de ngay jox te noonu la doon doxe moom euh, ku bëggoon xam-xam la koo xam ne euh, situation bu mënti xewit la mu ca doon gën a jublu mooy fexe ba nit ñi di seet li mën a jariñ ñëpp tey jii moom këru diine boo dem tarixa boo dem yaakaar ne foofaay këram loolu nag ñun ñëpp dañ ci war a jàngee euh, ba mu waree jàng-jàng na ba mu waree liggéey liggéey na yemul ci liggéey wutal na ñeneen i liggéey won ne na en tout cas aw yoon ci naka lay am réew di doxee wone na aw yoon ci naka la ñu mën a fexee ba ñun ñëpp ñuy yéenante jàmm tey jàppalante loolu laa mën a wax ci moom man mi nag sama wàllu bopp euh, natt bu ma mas a nekk taxawu na ma ci waaw quand j'ai été victime d'une tentative d'assassinat moom moo njëkk hôpital principal euh, bi may def rechute en 2007 moom moo ma yóbbu clinique mat bëri na ay faju yoo xamante ni nekkoon naa Paris bi yore woon sama dossier di ko def suma faa nekk te fekkuma fa ba tax da daan daje sax man bu ma jagadee fekk moom mu jagadi na fa ma naan ko xam nañu ay frères de sang xam ay frères de case xam ay frères d'armes waaye frères de maladie moom xamuñu ko woon waaye loolu boole woon nañu. Euh, ba bu mujj bi demam Paris bu yàgg bi daaw bi may def malaise le 14 février. deux jours après fa laa ko fekk ñu nekkandoo waat fa xëy na bu aju woon ci doomu aadama tey ji damay wax ne man de xëy na su gore woon maag moom lañ doon boole mais nag suñu borom moo yore mbir yi te ñun ñëpp ñu dellu waat ngir xam ne lii lépp ci programme am la bokk te moom ku ko mas a bàyyi xel la ma tëjee rek ñaari kàddu yi sëñ Bay Jaxate sëñ Bay Jaxate day wax moo téemaa jóg fàttaliwaat te soññewaat ngir leenu dem te duñ dëppaat amaana dig ba jege na mu ni damaa dem ci sëkk fekk fa képp nit mu ni cundum ci biir bàmmeelam ak i jëfam ma xam ni ku xam ni fii dig mu jëm bu yeewoo day teel a jóg ci mbiram te moom nag ku teeloon a jóg la ci ay mbiram loolu moo waral ah ñu mën a dalal suñu xel en tout cas li ñuy santaane mooy nuy ñaan ñu di ko ñaanal xam nañ ni moom ay jëfam moom ñun duñu ñi leen di àtte waaye en tout cas en tant que doomu aadama moom xam nañ ni jëf li mu jëf moom yombul. ñu ngi leen di nuyu di leen sargal. lii rek day wane tey jumaa ji ñu toog ak mbooloo mi fi dugg ak matériel bi fi dugg ku fi dugg danga xam ne ku baax moo fi nekk dañu olof dafa naan bu nit faatoo yoonu xaw yoonu armée mokk ka dem moo baax waaye bu sigil ndigaale bare nag kam bàyyee baax ku am tarixay Sénégal yépp màggalu Touba su ñëwoon su président Abdoulaye Wade ñëwee ba dem wala président Macky Sall nee bi nee bi ñu ko dalal mu aña fa foofu lay ba foofu la baabay màggale digganteem ak Serigne Saliou digganteem ak sëriñ Cheikh bu Serigne Saliou waaye digganteem ak Serigne Moustapha Saliou ba nga xam ne nii Serigne Saliou nelaw na dafa am matériel bu ko Serigne Moustapha Saliou jox ni ko lii moom nga doon ne ci Serigne Saliou yëkkati kër Touba jox ko kon baaba tey ci léewi di koor bi rek Cheikh Mamadou Mansour bu sëriñ Abdou Aziz Dabaax moo ñëw taxawee ko no àndanteeg moom ba indi ko fii ku doon dimbalee te yàlla tax ànd na ba taay ci oto mu fekk borom gura mu yëkkati benn benn doomu gura ni ko looy jaayee lii mun ko euh, cent franc laa ko jaayee mun naa ah, yow sa gura rafet na di daal di jël gura bi jël trois cent mille teg ci kawlaayu bi ba pare ni safaram départal def na ko ay miraaram wala mu fekk nit otom daw ba romb ko mu xool ko ni at ni safar bi arrière ma arrière mu wàccee loxoom jox ko loolu bu amul cardiaque da yegg suuf kon wata yeeg tabax yëpp tiitar négandiku la bàmmeel rek muy tiitar fongé loo fa dawalul doo ko fek baaba nag bàyyi woon na xel bis bii gis nga rek boo xoolee kilifa yi fi daje sëriñ Bassirou Mbackeem Cheikh Abdou Khadir mi ngi ci biir sëriñ Habib Sy bu sëriñ Mansour borom daara ji mi ngi noonu dugg sëñ Cheikh Awa Balla bu sëñ Moustapha Bassirou mi ngi ci biir sëñ Abo Mbacke doomu sëñ Cheikh Saliou Mbacke mi ngi ci biir loolu moo lay wan ni baaba kër yi diine yëpp la am na ko yàlla taxaw yàlla na ko yàlla xettali waaye moom jëfam rafet na te am na ci yaakaar ak yërmande yàlla. jaam nag lu mën a jëf yërmande yàlla rek lay jàllale yàlla na daje yërmande yàlla waaye réew mi tey ñàkk nañ koo xam ne kii doo ko fekk fenn ba deen yor na ñaari dërëm ndax torox lom ak bañ addinaam ak li ko yàlla dénk waaye bu dimbali jotee buy dimbali sax day effacé wu kenn mësu koo gis ci mbooloo mu jël kaddu loolu keroo bi yaayam gaañoo te président Macky Sall ñëw di ko jàll si ci lay jëlee kaddu mais doo ko jégg mu jël kaddu fenn lu luñ ci mën a jàngee def te yàlla tax xam ni ëllëg da nga jëm fii jërul dayoo am na oto yu rafet mën naa sol mbubb yu cher dëkk na ci lal yu cher am na ko waaye boo ko fekkee fii doo ko xamee ci biir nit ñi man man nga ko mën nga ko fekk mu toog mu yónni ko ñu ngi may nettali léegi ku ko may 3000 francs ku mu waxal ba muy dem rek waa ji lam poosam génne 3000 francs may ko loolu mooy toroxlu ak delloo sa bopp ci yàlla doomu aadama yi nag ñooy toobay yàlla boo bëggee loo ji mu sax defal ci doomu aadama yi moo tax doomu aadama benn jëlul xeet koo gis rek war maalal moom nag dafa war maaloon doomu aadama yi yalla koy président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye yebal na fa tey chef de cabinet am ñëw na mais xo Idrissa Seck premier ministre Souleymane Ndéné ancien premier ministre Mamadou Lamine Loum ancien premier ministre waa kër Ousmane Tanor Dieng benn parti wala pouvoir ñëpp la Baba Diaw doon yemale li li parti yi pouvoir yi doon xëccoo yëpp opposition yi dañ daa daje këram mu teg leen ab reer ku ne reer kenn du xas sa morom loolu Baba rek moo ko amoon yal na yàlla xare ko àjjana. man Baye Cheikh Seck Cheikh Yirim Seck laa tudd waaye Baye Cheikh Seck lañ may woowee may xarifa Cheikh du Dumbaan Seck bu Cheikh na Cheikh saat bu waaw waaw man du woon sama xarit rek sama mag la woon Baba maa ngi maase ak rakam Faraba Diaw ñu doon ànd nekkoon groupe ak ñoom Cheikh Ngom ñu daan fréquenté fii penc Alinguer ba tax na bi ma déggee njaa euh, wàcc liggéeyam li li jullit di wax rek laa wax walladina ida asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma muy muy muy njaal bi nga xam ni yàlla ko joxe ci alquran ñu koy jaalante ñu julliti ma am ci moom yu ma xam bariwul nag ndax bi ma koy xam j'étais un peu plus jeune que ah, muy nit ku am fulla am fayda am jom am njariñ ci réewam am ko ci waa këram bari woon ci Thiès bi lool lool lool ñu. Sénégal na. waaw ñàkk na un développeur. ku bëgg réewam koo xam ni su si réew mi yëpp mooy lu jëme réew mi kanam man yàgg naa koo xam lool. waaw boo bëggee sa réew. da ngay yéene seen eh, réew mu jëm kanam ci jëf ak wax wax ji mooy lan da wax lu dul jàmm dooy def lu dul jàmm lu dul jàmm àndoo ci jëf nag moom Sénégal yëpp gis nañ ko Baba Diaw ku nekk xam na ni c'est un grand développeur teel na am jom lool teel na dugg ci li nga xam ni bu ko réew manqué manqué na lu bari muy pétrole mu nekkoon ci ku ñu xam ku ñu ràññee jëriñ ci réewam lool lool lool lool nag mooy def lu ko neex te ida jaa ajaluha la yastaxiru saatan wa la yastaqdimu anha bakkan moom bu app bi ñëwee ñëw na du du ko weesu seconde du ci yokk seconde waaye le Sénégal a besoin d'un homme comme lui ah, waaw ñoo ngi ñaan yàlla nag yàlla yërëm ko yàlla dugal ko àjjana eh, il pare xar ya ñoo ngi may wax léegi ni jumaa ji xaarewu ko li mu fi def bari na lool lool lool lool ci taaral ko ci yokk ko kon loolu yàlla na ko fekk fii ñu koy sang bu duggee bàmmeel yàlla na ko fa fekk ndax ne la laa yudhi'u ajral muhsiniin yàlla nee na du ma perdre lenn luy bienfaisance ci jullit du ko yàq. kon waaw discret très discret euh, on dirait même qu'il qu'il se solitaire alors que c'est pas ça da dafa bëggoon entité jëmmam ak xelam. lépp luy psychosomatique ci moom mu mu def ci fulla rek ba lu mu liggéey loolu réussir loolu mooy Baba. Siré Diagne maak euh, Baba ñoo bokk koñ bi muy def bac booba lay def BFM mu génn fii boo nekk le meilleur élève de terminale en 66. bon école normale la def compte bon léegi bi mu def mu jóge fii dem France. bon ingénieur sur plusieurs branches à son retour bon mu ñëw au aux à Taïba bon il a fait une un entretien après mu wax le standardiste man dama fi am sama rakk du tudd dama bëggoon ko gis bon léegi bi ma ñëwee man ko grand kañ nga ñëw mun ma je viens d'arriver mais Senghor m'a demandé de faire le tour du Sénégal pour avoir un emploi. bon vers les années soixante-seize par là. après bi ma bi ma ñëwee mu ne ma dem naa régie mais aujourd'hui je suis là bon j'ai fini mon entretien mais euh, proposition yi ngeen ma defal man mënuma ci d'accord quoi parce que moi bon vous me proposez un salaire de un million cinq un logement et une voiture moi je chez moi chaque semaine je peux avoir trois millions c'est comme ça qu'il a quitté bon le lendemain mu ñëw ñuy jouer un match fii à Thiès contre l'ASFA waaw mu ñëw assister au match après bi nu gagné ASFA mu ñëw il est venu dans notre car ni ma Siré il tu perds ton temps il faut aller en Europe am wane ton mu nekkoon koo xam ni gëf ma jàppoon comme son frère waaw son frère waaw période bi mu nekkee en France yëpp maa ngi doon am de ses nouvelles bay hier lan ma wax ni affaire bi am na ko Malick Ndiaye bi xam ni c'est son homme de confiance ah moom bi ma ko téléphoné dafa ni moom bon jeune ne vais pas du dem ci levée du corps bi mais je vais descendre sur Thiès pour préparer l'enterrement quoi bon man nag dama koy ñaanal bon yàlla xaare ko àjjana ku baax la woon disponible qualité yooyu yëpp ngeen euh, décrire ci moom. waaw tey jii lan lañ ci war a mën a jàng comme lekk surtout pour la jeune génération. le combat moom lu mu am daf ko ñafe de waaw il travaillait moi je dis que il fut un temps boo xam ni il quittait chez lui vers dix huit heures pour aller à son bureau vingt une heures la fay jógee bu fa delluwaatee c'est le lendemain à dix huit heures moom tu ne le vois pas traîner dans la rue waaw nekk koo xam ni vraiment référence la pour la jeunesse sénégalaise lu mu am daf ko ñafe waaw kii dëddu tey te ñu koy gunge si këram gu mujj Ablaye Diaw di baaba Diaw ku ma xamoon la ku baax a baax ma jàppee woon comme rakkam di ma tete di ma xelal fu nekk fekk naa ko fa këram bi nekk Yoff buroom place de l'indépendance euh, toolam bi nekk Pout vraiment dañ doon weccoo ay xalaat yu bëree bëri ëpp na ñaar fukki at euh, li ma jàpp si moom mooy ku nga xam ne ku xarañ la woon ku baax la woon ku ëmb loolu la woon ku woyofoon la woon suñ la newul kii mooy baaba Diaw doo ko xam loolu yëpp ça veut dire alal ju mu amoon parce que bokk na si ñu nga xam ne ñoo ëpp alal si senegal alal googu musuloo ko musu ko musu ko musu ko wone musi si ëppal musul tax mu xeeb nit ku baax la woon amul kenn ku nga xam ne si Sénégal ñëpp la doon dimbali aussi bien Touba Tivaouane képp képp képp ku nekk rek am na nu am na lu nga seq ak Baba jaw lu baax donc lu baax rek la ñu xam si moom ñu ñaan yàlla yàlla xaree ko àjjana njabootam bi mu fi bàyyi euh, continuer liggéey bi lim fi bàyyi li mu sax mooy outarde Oryx Itoc loolu continuer gën a law vraiment continuer gën a développer ku baax dem na ku baax dinañ ko rëccu bu baax a baax Sénégal moo perte Thiès moo perte Afrique moo perte di ko continuer ñaanal merci